ki boy Cheikh a ngi ne te kanam sama xaar ba Cheikh ay yàlla

waaw daal Dakar. maa ngi nii waaw yow laay wër ma filmé de. Bye bye, milliardaire. non bravo, géré, géré, géré. Ada dari tiba di sore mungkin ada ada kon. Tahu mana, mai kon. Tahu mana. Tahu mana. Tahu mana. Ayo, lah. Lah, lah. Para para. Sensation. Écoute cela. Papa, may ma benn. Mets-toi en devant ci kanam. Avancez, avancez, avancez. Avancez leen. mais mais. Copain bul defati loolu de. waaw dëgg yàlla bu ñuy. may may may presse bi liggéey. bul defati loolu may presse liggéey. Gay gay dem ngeen jël courage dem dem ci collègue Alioune. Alioune. Sudah biar nawa karena dëgg la ren leewal ndax am ci affaire ak bi ci kanamam ak bi ak bi avec le jëwriñ Cheikh Ama dagal Pare. Alan Sall Alan Sall kay waaw booy dem xeex da nga yóbbu arme ay paate ñëw sa paate yi Thank you. da ngeen xaw bu ngeen koy jàll bu fees da ngeen di jàll baax a baax a baax waay paaka waay. Aliou. kii booy. Cheikh a ngi nawet a kanam. suba xaaral ma Cheikh.

Diallo ana Paco Jackson Thiam ana ngeen yéen ñuy wax ne ay taalibe sëñ Saalu ngeen ak Béthio Thioune dooméram bi léegi Cheikh sama waay la dóor ma jàppal la. ma dóor leen Cheikh ma dóor leen. ma dóor leen Serigne Darou Amar. Mbacke Ball ma dóor leen. sa si ne waaw. da ngay dee. jërë nga def. daa yaa ngi saxal. ma nga xeex ña nga xeex. Assane Diouf yaa ngi koy dóor. kii moo ko doon saaga ci oto bi gërëloo. waaw jërëjëf. waaw dama saaga di ko. dama ko dumoon eh. Yes, sir. loolu la ko wax. donc dafa daanu. wala ak fekk mën ko bëri waroo def ne. eh eh saaga yi booy bi ñu ñëw. bi ñu ñëw. xoolal man su ma gisee gërëm maay daxaan rek. man dañ leen ma àllaaye man maa leen ko maay daxaan rek. góor jigéen góor jigéen la fi def. règlement de compte. waaye kii fii kenn du fi dara Serigne Saliou la ñu wax ba li ngeen def bàyyi na Pape bàyyi na xaw ma ngi nii mi ngi nii oto ma oto ma ngi nii mi ngi taxaw.